di leen sant bu baax waaye di leen profité ci occasion bi di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp ci tafe tabaski gi nga xam ne ci la ñu jógee di leen ñaan ngeen jéggal ñu lépp loo xam ne lu tooñ la wala lu naqari nit la ci biir liggéey bi rek ñu ngi la koy jéggal bu baax di wax ne jéggal na ñëpp ñun di ñaan suñu borom mu boole nu jéggal li ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé comme ni ñu ko baaxoo di waxee chaîne bi li ko tax a jóg mooy firi gént léeg-léeg danañu baaxee nit ñi lenn ci ay ñaan yoo xam ne ci alquran lay jógee pour sunuy abonné ñi di ci jëriñu incha allah lépp luñ mën a joxe ci xam-xam rek danañ ko joxe incha allah lu ñu joxe itam ci alquran lañ koy joxe li ñuy wax kun ko jox boo ko dee jëfandikoo nga wattandiku jëfandikoo ko ci sobe bu dee jigéen la boo seetul bu ko laal nga moytu lépp loo xam ne loola suñu borom tere ci wàllu bàkkaar la nga moytu ko su boobaa yàlla mën na laa dimbali dina la jëriñ incha allah lii li leen jox kay bu maanaam secret bu wér la boo xam ne du lu nit ñi làmbatu euh, lu nit ñi denc ci taatu wal valise la danañ ko def nag baaxee ko ñi nga xam ne ñooy suñuy abonné ngir ñu jëriñu ci euh, secret la boo xam ne lii moo ko tax a jóg muy mucc ci jàngoro yi ngeen di dégg rawat na bi ñu toll yàlla mën na laa dimbali bu dee balaa la lu mu mën a doon yàlla mën na la cee musal bu dee jàngoroy biir yu nekk ci sa biir di réer ci sa biir yaram walla yu la sonal yàlla mën na la ci dimbali bu dee seytaane la maanaam lu la seytaane teg yàlla mën na koo dindi bu dee liggéey la yàlla mën na la koo dindi dañu wax ne lii képp ku ko jëfandikoo képp ku ku la fexeel la mu lay fexeel dana dellu ci moom lii la mën nga koo jàpp dangay bind faatiha aaya boo bind ci fatiha nga bind aaya yi may wax maanaam boo bindee bismillahi rahmaani rahim da bind suratul falaq ak suratul naas maanaam qul aouzu bi rabbil falaq ak qul aouzu bi rabbin naas ak suratul fiil ak laqad ak aaya boo bind ci fatiha yi ngay bind boo bindee bismillahi rahmaani rahim bind yii maanaam boo ko xoolee mu ngi nekk ñetti saar ak ñaari aaya boo bindee alhamdulillahi rabbil alamin nga taxaw defaat loolu bind arrahman rahim taxaw defaat loolu boo yeggee ba ci wala daalin nga daal di taxaw defaat loolu daal di tëj boo ubbi da ngay bind aouzu billahi min ashaitan rajim bismillahi arrahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim maanaam musli ci seytaane tudd sa borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo paree nga tëjaatee julli ci yonente loolu boo ko defee mu nekk benn fatiha nga teg nga daal di bindaat beneen fatiha beneen fatiha bi dangay ngay bind bind ginnaaw aaya bu nekk suratul falaq ak suratul naas foofu nag nga taxaw dafa am sew-sew boo teewul da nga da nga juum ak suratul naas ginnaaw aaya bu nekk ci beneen fatiha bi wax naa la bu njëkk bi ni nga ko defee nga teg ne booy bindaat bi boo ñëwee ba ci suratul falaq ci biir suratul falaq da nga fay bind yadullahi fawqa aydihim boo ñëwee ba ci suratu naas suratu naas nga bind wallahu yaasimuka min an naas nga bind ko ci baadu kulli ayatin naas bu dee bu baax da bind fatiha aaya boo bind ci fatiha nga bind suratul falaq ci biir falaq bi nga dugal fa yadullahi fawqa aydihim boo pare nga bind suratu naas ci biir naas bi nga dugal fa wallahu yaasimuka min an naas bu fekkee ku comprendre mën nga ñu jot ci numéro bi koo xam ne itam soxla nga ko mën nga jokkoo nuñ mën nañoo fexe ba nga am ko bindal la ko fexe ba nga jot ko incha allah boobu nekk beneen faatixa soo paree nga boole ñaari faatixa yooyu nga def ko sa saafara nga wut ndab lu set def ci ndox mu làpp wut place bu làpp nga fexe ba làpp nga sangoo ko diiru juróom-ñeenti nga xool incha allah bu dee dala fekk ci feebar da ngay boole di sangu di naan bu dee du feebar mucc ci cat ak yooyu la ak liggéey gi mel noonu yàlla mën na laa dibal lu mu fekk ci sa yaram ci liggéey dana toj bu dee seytaane la bu dee jinne la lu mu mën a doon te képp ku la fexel itam pexe ma dana dellu ci kawam ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé ku mu leerul wala ku ko soxla mën nga jokkoo ak ñun ci numéro yi incha allah wa ma zalika wa allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi arrahmani arrahim amma